ak euh, lu soxol campagne électorale bi euh, ci législative yi di falum député yi kon campagne bi door nañ ko euh, ci bis bi jàpp nañ ni nag ñi nga xam te ni nag ñoo di waa coalition waa Sénégal ànd ak candidat Talla Sylla ñoom jàkkaarloo ñu nañu ci bis bi ak taskati xibaar yi junjuñ nañ daal ab mbir ne nag bëgguñu benn yoon njiital réew mi Macky Sall dugal loxoom ci campagne bi fal député yi ci Sénégal reportage ca ñoom ca jàkkaarloog taskatu xabaar ya Mame Diawar Diallo ci ndimbalu Pape Samb ngir door élection législative yi ca waa coalition waa Sénégal ñi ñu investir ndakaaru nag fas yéene ci tëral ay doxalin yu bees kii di Bruno D'erneville xam le ni dañuy bañ assemblée nationale bi fi amoon ak ancien régime bi te wat fi lu ni mel moo tax nag ñoom dañuy doon ay député askan wi du ñu doon ay député président de la république. def di tour boo xam ne député yépp a ko war a am ndax sartu réew mi dafa ne député bu ñu la falee yow askan wi moo tax nga toog assemblée nationale du président de la république naam tey boo seetee ni ñuy falee député yi dafa am pàcc boo xam ne dañ koy fal ci li ñuy wooyee. scrutin proportionnel mooy ñi nga xam ne ci list national bi la ñu nekk ñooñu amuñu gox boo xam ne dañuy fay dem pour xeex fa wala pour daal wane seen euh, taxawaay ñoom dañuy toog rek ci liste bi bu parti bi amee doole ba nga xam ne ñëpp woteel nañu parti bi bu boobaa ñoom dañuy ànd rek buubu dugale assemblée nationale. ba tey ci kàddoom tête de liste Dakar bu waa Sénégal nag di ñaan njiitu réew mi mu bañ a bokk ci élection législative yi. Bruno D'Erneville gis ni bokk Macky la erreur la. président de la république war na mun a dellu ginnaaw bàyyi ñi nga xam ne am na kóolute ci ci ñoom te jox leen tabb leen ci liste nationale yi ak liste départementale yi ñu ñëw njonganteeg ñun ñun de loolu mooy suñu suñu loolu mooy suñu taxawaay pare nañu bu dee wóolu na leen na leen bàyyi rek ñoo ñu dugg ci ci ci ci askan wi ñu njonganteeg ñoom ñu wan askan wi ne ñooñu ñuy tabb noonu ñun de. Pastef bi ñu am xam-xam bi ñu am ak amour bi ñu am ah ci ci réew mi ah kooku de euh, gën a am amour bu mel noonu ci suñu réew dina jafe daal cofeel bi ñu am ci réew bi foog naa ne euh, askan wi ñoo koy mën a seetal seen bopp te loolu dafay laaj ñu bàyyi képp ki nga xam ne dañ ko tàbb ci liste mu dem gis askan wi ndax euh, ut ay voix. ci élection yi nag waa coalition waa Sénégal fas yéene cee ubbi ay permanence seen candidat bi ngir gën a jege askan wi. lépp rek ngir bëgg a déglu bu baax jafe-jafe yi ñuy jànkonteel